dañuy dañ leen di vacciner Sénégal fu mu ko signé waxu ko sénégalais yi ñun ñu yàgg génn ci internet bi ne nit ñi Sénégal dafa bokk ci ñoo xamante ni dañoo signé pour ñu vacciner seen population ñëpp génn nañu da ngeen di fenn ci internet bi ñëpp sosal ñu yàlla jox ñu dëgg Macky Sall léegi waxatul sax waxu vaccination gratuité vaccination lay wax léegi mu ñëw créer waat beneen débat nekkatul. accepter vaccination parce que lolu passé na def na waxu ci dara parce que respecté wu leen lijjantiwul li ngeen xalaat ci lu moy def mom lu ko ëppal solo legui moy gratuité vaccination legui gratuité vaccination bobu noonu yow nga accepter vaccin Amo courage ñëw RTS taxaw sénégalais yëpp dégg la nga né Sénégal ñun état Sénégal dañoo accepter vacciner suñu population lolu mo tax distraction bi bari ñu utiliser TFM pour mu nax askan bi ci débat yo xamanteni depuis 2018 la amone ci discours bo xamanteni depuis 2018 simplement pour neub askan bi li ni nek di xew actuellement présentement li ni nek di xew présentement mom lañ leen bëgg neub motax ñi indi leen discours bo xamanteni depuis 2018 la xew légui nak ñun ñu ci activiste fait divers yi ñun activiste politique lañ anti impérialiste anti colonialiste donc ñun lool moy suñu léegi lu xew nag mooy organisation mondiale de la santé dafa jox Sénégal ay équipement de vaccination depuis ñu génn RTS wax ko ñu ne OMS nous a doté d'équipement. mais nangu ñu wax ban façon équipement ñun ci suñu recherche ñu gis ni vraiment mooy équipement vaccination bu ñu yàgg wax sénégalais le Sénégal jot na finalement mais RTS nous ñu leen di wax préparer mentalement à recevoir un vaccin Nous leen plusieurs études sont en cours ci vaccin pour ñu am vaccin pour vacciner aduna bi parce que lolu moy solution contre coronavirus léegi ñom lolu buñ ko waxé ñun ci suñu ay investigation dañoo gis ni équipement vaccination OMS mu ngi leen di préparer ci programme vaccination bo xamanteni coronavirus bi lolu mo ci am léegi nak sama gaay yi dama leen bëgg wax ben affaire gis ngeen ci aduna bi amul ben endroit sama gaay gën leen ko poster ci groupe yi groupe yi surtout bu leen ko envoyer ci messenger yi rek da ngeen koy envoyer ci groupe yi ak whatsapp yi ci groupe whatsapp yi da ngeen def partager ngeen def ko partager ci whatsapp ngeen copier lien bi whatsapp gaay yi tamit jot ko ci whatsapp bi dama bëgg ñu tourner fep sénégalais yëpp dégg ko lu xew moy président de la république amul benn président de la république adun ci aduna bi ko xamanteni day tweeter à 23h moment bu nit ñi di nelaw di annoncer une décision aussi importante pour son peuple une décision aussi importante pour ton peuple nga koy annoncer à 23h ci Twitter Twitter ñaata doomu adama ñaata sénégalais ñoo nek Twitter ñaata sénégalais ñoo am compte Twitter ba Macky Sall yow sa annonce Twitter nga koy défé. Macky Sall waxatul ak sénégalais yi Macky Sall wa Nouvelle ordre mondial lay waxal Macky Sall lijjantiwul sénégalais wa Nouvelle ordre mondial lay lijjanti parce que Twitter lay communiquer est-ce que suñu kilifa diiné ci Twitter lañ nek? est-ce que suñu population sénégalais ci Twitter lañ nek Facebook bi nga xamanteni sax jeune yaangi fa waxul Facebook parce que xamna ni fofu day def bruit Twitter la ko yóbbu gaay jele ko Twitter indi ko Facebook sama gaay c'est ça qui est la réalité dañuy waaj a rey waaj na vaccin wax leen ko kilifa yi wax leen ko ñep ñep préparé wu ci wax leen ko ñep parce que bu ñuy wax dañuy naan dañuy sos mais wax leen ko kilifa diiné wax leen ko ñep ci Sénégal ñu yëg ko ngir yalla envoyer leen mit discours bi ñep ñu yëg ko benn yoon nee leen ñëpp Sénégal accepté na vaccin yi te ci fan yu néew dinañu ñëw vacciner population bi ñëpp duñ ci bàyyi kenn duñ ci bàyyi kenn ndax ñoom politiciens yi lu ñu leen di vacciner mooy la même chose que lu ñuy vacciner population bi kenn xamul lu mu doon dañuy waaj a rey dañuy waaj a rey couper sama direct du tax ba du ma génn defaat direct te bii yoon la ko gars yi di gën a dégg ko bi nga couper parce que duñ ci dellu ginnaaw mukk couper direct bi ma génnaat. Macky euh, ministre de la santé nous Diouf ça. organisation des nations unies dafa lancé loo xam assemblée mondiale de la santé donc xam Diouf vidéoconférence la assistée. assisté sama gars Envoyez une vidéo de Diouf Sar. Envoyez-le Macky Sall les faux ministres les traîtres de la République les corrompus les ennemis de la nation les ennemis de l'indépendance les ennemis de la dignité Envoyez-le un discours de ñu c'est les traîtres qui ont trahir le pacte qui les lie avec le peuple donc le xew assemblée mondiale de la santé